salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum mbokk yi ñëwoon pour jooy leen sama naqar naqar bi nga xamante ne nii ah naa su ma ko waxee nit ñi dinañ ma ci dimbale jàppale ma ndax euh, feebar bi dugg suñu dëkk bi man sama jëkkër immigré la man jabar moodu moodu laa sama jëkkër daf fi ci mois de décembre ja décembre bi mu ñibbi ci janvier bi la ñibbi fin janvier sax la ñibbi léegi ba mu ñibbee dëkk bi àdduna bi yëpp di ma daw su ma demee marché ñu xoolante ma su ma nekkee ci koñ bi kenn du wax man nee ñi dañ sama jëkkër daf ma fi bàyyi doomu jàngoro bi mu metti ma lool léegi nag ma sonn waxtaan ci sama benn càmmiñ ma ne ko ku muy dimbale moom laay wër ku ma ci dimbale daw nañ ma mboq yi daw nañ ma ñëpp daw nañ ma te feebar bi amuma ko tey amuma ko ëllëg gëm naa boo xool ko su ma ko amoon kañ feeñ na depuis décembre la sama jëkkër ñëwoon ba ñibbi ci fin janvier xanaa di ma amoon feebar bu bon bi xanaa di dina feeñ ci sama yaram wala mu feeñ sama njabar wala mu feeñ sama dëkkandoo te sax yu may togg di leen jox ñi lekk loolu daal lay jooytu tey nakar boobu laa am sama jëkkër nga fee dara dalu ko mu ngi sant yàlla mu ngay liggéey mu ngay liggéey di génn bu fekkoon ne am na feebar du liggéey du liggéey man daal loolu lay jooy ku ma ci mën dimmali nag ma jël